يا مولاي la ilaha illallah fa erafal far yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah faram jani ca yàlla la ilaha illallah fa soxna Ngaye Fall mii soxna Khalifa Baye Fall nee na ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la sant di la ñaanal tey sàkk mbooloo mi ñëpp ñaanal la ndax ñoom xam nañ ne mënuñu laa fay ndax fa leen seen waajur féete woon mat nga ko sëkk féete nga leen fu ko raw ñu ngi lay ñaanal sa borom gi gën la fee yàggal te gën laa wéral nee na lu ñu am yow a nun lu ñu yow la kon nag Fall ñu ngi lay gën a ñaanal te koy sàkku ci kilifa yi toog ñëpp ñaanal la sa borom yàggal la te wéral la lu ñu defit xeeb nañ ko asakay la ñu yéene ci sëriñ bi la ndax xam nañu seen lépp sëriñ bi la tiituñu ragaluñu defuñu dara lu dul xam ni sëñ baa ngi jiitu ci ñoom topp ànd ak ñoom toppaat seen ginnaaw kon ñu ngi sant sant bu baax Fall di la ñaanal sama borom yàggal la fi te wéral la soxna maam xare yi wax nañ ne dañoo xam ne màggal gii bu fi seen bàjjen nekkoon kenn du ko ci ëppale nee na moo dañu fas yéene laxasaayu kenn du ci ëppale fas yéene nañu taxaw ni seen maam daan taxawoo loolu lañ wax nañu jot li ko sëriñ bi waaw ñu ngi lay siyaare di la ñaanal tey sàkku ñaan ci yow addee jaa ngi nii nee ñoo ko barkeloo ci bés bi te xam ne lépp ñoom la war sëñ bi nee na sama borom yàlla na ko barkeel lool sëñ bi nee na mi ngi leen di nuyu di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di leen gën a jaajëfal bu baax a baax ci takku gii ngeen takku ànd doon benn nee na day ndigal loo xam ne suñu borom moo ko njëkk a santaane ànd doon benn nee na gaay baax yi topp ci moom yëpp santaane ko nee na loolu li ngeen def lépp loola ko ci gën a neex ànd gi ànd boole seeni xol muy benn ngeen doon ay tuut tànk jaar ci yoonu siraatal mustaqiim nee na lool rek moo ko ci gën a neex nee na loolu nag mi leen ci ñaar yàlla yàlla na gën a jëm kanam bu baax ngeen gën a góorgóorlu bu baax te xam ni gone amatul nee na ay tuut tànk ngeen waaye teewul li mag ñiy def yéen a ciy def seen kéemtulaay kàttan kon nag sëñ bi nee mi ngi leen di ñaanal yàlla ci barkeb seen turandoo seen maam sama borom guddal fan seen fan wéral yaram yu baax a baax lu wërsëg wi ba lépp lu ngeen bëgg a def rek ngeen defee ko nu kawe seen njort bu baax a baax ngeen gën a booloo topp ci ginnaaw soxna Xadi lu mu leen wax rek ngeen xam ne ci moom mii la jógee ngeen di waxtaan ak moom bu baax di bañ a réeroog moom ci dara bu ko defee rek li ngeen bëgg seen bàjjan di ngeen ko am nent loolu la leen di ñaanal bu baax ngërëmam ngeen di sàkku yàlla na ngeen ko am ci barkeb maam Cheikh nee na ngeen góorgóorlu gën a laajte soxna maam Xari Faal yépp yu ndaw yi nee na am na boo xam ne barki démb rek la ko tudd moom mii bu ko defee ngeen boole ko ci tëngeej la nekk waaw dem nañ fa nañ la wax kan la jox la numéro téléphone baayam ak lépp ndax bi mu ñëwee di ko tudd mu nekk ko ku ma koy tuddee mu ne tuddee ak soxna maam Xari mu ne ko da ngaa xam soxna maam Xari mu ne xaw ma ko waaye damaa dégg ay jëfam waaye tuddal ma ko soxna maam Xadi muy dox na sëñ Waly moomu kon nag ngeen boole ko ci baax sëñ bi nee na jërë ngeen jëf mu ngi leen di ñaanal fan wu gudd ak wér gu yaram li ngeen fi indi ren bu déwénee yàlla nañ fi indi lu ko te ànd bi nag moom moo ko ci gën a ñor nee na bu leen di gëj di déggante seen groupe boobu ngeen def di leen ci waxtaan bu baax bu dee ñaan gi ak dul ñaan gi yëpp te lépp ngeen teg ko ci ci ak jub ak siraata mustaxim te xam ne loolu mooy tax a àgg fi ngeen bëgg a àgg nee na boo jubee rek fi nga bëgg àgg sa borom mën na la faa dimbali ba nga àgg ko fa kon ngeen góor góor lu baax te nangoo liggéey lu ngeen moomul bu ci seen yoon nekk ngeen déggal seeni wayjur bu baax te xam ni seeni njariñ lépp mu ngi ci ngërëmal wayjur yi bu leen yàkkamti dara déggal leen seen i wayjur te nangoo liggéey nee na ku ci nekk ci ab sëy na nga góorgóorlu bu baax ku ci nekkagul nanga nga nekk ci ak jub ba yàlla sama borom defal la ko neen loo leen di gën a soññee bu baax waaw leen góor sant na leen gërëm na leen sëñ bi nee na sëñ nee na jikko nekk seen turandoo nee na ñu bari duñ ko ci xam waaye ngeen xam ne lépp mooy ak jub ak nangoo liggéey ak sonn loolu rek defar ay nit rek nee na du fekkee mukk lu yàqu sëñ Cheikh Fall moo wax ne sëñ bi nee ñoom gis nañ ni liggéey bi yokku na bu baax soxna yi nee nañ li nga leen ñaanaloon lépp teg nañ ci seen bët kon nag danga nga gën a ñaan yi nee na bëriwuñu bëreeguñu waaye lim bi faw xanaa lañ indi woon daaw ndax loolu lépp nag faal sa ñaan la kon nee nañ ñu ngi gën a tàllalaat loxo yi soxna Xadi Faal it nee na Baay Faal mu ngi sant jëwrin yi muy sëriñ Cheikh Fall ak sëñ Modou Faye ak soxna maam Ngari Xari Mbeng ak soxna maam Xari Ndey Bada kon nee nañ ñu ngi sant jëwrin yooyu ak ñi topp seen ginnaaw ñëpp ak soxna maam Xari Joob mi nga xam ni moom mooy njëkka turandoo wu njëkk soxna maam Xari booleeg doon ak seen doonaat seen ndeyi daara ci taxawaayam bu am solo bu rafet nga xam ne yàgg na koo taxawee kon soxna xarit nee mi ngi lay nuyu di la ñaanal ci barkeb sëriñ bi li nga bëgg lépp sa borom defal la ko ak ñi topp seen ginnaaw yëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bu nu santee yàlla suñu borom tabaaraka wa taala eh, julli ci yonante bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di jaajëfal bu baax maam Cheikh Ibrahima Fall. ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk turam ak santam di jiital ci siyaar bi ak nuyu bi di ñaanal bu baax eh, Cheikh Mountakha Mbacké Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni moo fi toog jotaayu Cheikhul Khadim di ñaan suñu borom wéral ko lool guddal fa aw fanam ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa mu def ko noonu la ñuy ñaanal sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda di ñaan suñu borom wàcce wàcce ci moom kattan euh, ak ak wér ba li mu bëgg a liggéeyal Cheikh lépp mu liggéeyal ko di siyaar bu baax sëñ Modou Fall mi nga xam tey jii euh, mooy euh, taawu sëñ Cheikh Mbacke Fall bis bii di bis bi nga xam ne ci la waajur mu tedd ba sëñ Cheikh Mbacke Fall bàyyi ko woon ñibbi àjjana ñu ñaan suñu borom dolli ay ngërëmam dolli ay leeram ci barke Sëñ Tuubaa Cheikh Ibra mu doon koo xam ne jàmbaaloon joo xam ni yoonu Baye Fall yëpp ko xamoon ci fidwa ci jom ji ak ngor gi loolu nag ñu ngi ñaan suñu borom soppi lépp def ko aw yiw sotti ko ci kawam di ñaan bu baax it sëñ Modou mi nga xam ni moo ko fi wutu di ñaan suñu borom woyofal yan bi eh, guddal aw fanam ba naal ya ak yéene ya nga xam ne bàyyam bu tedd ba naaloon na ko ak yéene ji suñ borom may ko kàttan mu àggale ko moom ak njabootu suñu Cheikh Mbacke Fall gépp ànd ko ak ay rakam ànd ko ak ay magam di ñaanal taalibe yi baax a baax di wax ni euh, kër kilifa moom kër sëñ bi moom nu mu mel rek taalibe yee di wax taalibe yi rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci groupe yi bokk ci site yi di taalibe yi nga xam ne ñoo yaakaar sëñ topp ci kawam di sàkku ci moom ngërëm yàlla ci njiitul sëñ Moustapha Jaxate ñi ngi leen di xamal ni nañu góorgóorlu bu baax a baax te xam ne sëñ bi dem nu mu mel taalibe yee ñu taalibe yi sëñ bi waaye nu sëñ bi mel taalibe yee ñu gën a góorgóorluwaat bu baax laxasaayu fas yéene liggéeyal sëriñ bi ndax eh, yoon wi moom yoon la woo xam ne yoonu jëf la eh, jëf rek am solo kon nañu sax ci jëf góor góoru ci liggéeyal sëriñ bi suñ ko defee rek liñ bëgg lépp danañ ko am ñu ngi leen ñaanal baax baax di saare eh, mbokk yi fi teew rawatina suñ kilifa yii di sëñ Cheikh Fall mu sëñ Talla Mbend di siyaare sëñ Mbaye Fall mu sëñ di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex waaye ngeen ñaan sëñ Modou mi it suñu borom guddal aw fanam ba naal yi nga xam ne da koo naal euh, naal yi bàyyam mi àggale ko naal ay naalam am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax ci ñaari mbir ndax it yoon wi moom yoonu jëf la comme ni ma koy waxee rek am nañ yaakaar ci moom ci bàyyam ba nga xam ne moom la fi wutu am nañ yaakaar ci waajuram tedd ba di soxna maam Khady Fall ndax ñoom ñëpp kenn ku ci nekk surtout Serigne Fall nga mu ñëw bokk ci seen biir kon yaakaar naa ni rafet nañ ci moom njort bu baax a baax ñu ngi leen di siyaar bu baax te jéggalu kàddu yi Eh, wax moom dañ ko mënut waaye dañuy jéem rek eh, di jéggalu nag di ñaan suñu borom daal weeru koor yi nga xam ni ci la eh, sëñ Cheikh Mbacke Fall bàyyi ko woon fii di ñaar ko fan yi yàlla na ko ci suñu borom dagale ak ngëneel ngëneel weeru koor waaye yàlla suñu borom tëbb ay kattan dafa koy xéewal foofe mu tëdd waaye teg ci njabootam gi loxo ci barke sëñ Tuubaa ak ñu ngi jégalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex defal ñu xéewal te bis bii luñ ci ñaan suñu borom nangu ko te wàcce ko ci kawam ci barke Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi sant bu baax di gërëm lu baax baax ci kàddu yi nag jërëjëf tubaarkàlla Saxum Saxum Touba bi site bi maa ngi leen sant ñoom ñëpp seen taxawaay bi ñu am ci bis bi ak seen taxawaay bi ñu am ci koor gi di jiital Sëñ Moustapha di jiital Cheikh El Hadj Fallilou Ka ca Amérique ba euh, Mamadou Bassirou Mbacké moom Sëñ Abdoul Khadi moom Sëñ Baara ci Amérique gis naa ndawam tam ñëw na ñëw na maa ngi leen jiital Sëñ Cheikh Madi euh, waa Belgique gis naa seen yónnee ñëw nañ ñoom ñëpp ñu ngi ci biir daara ji ñu ngi dégg li may wax maa ngi leen ci sant ñoom ñëpp di leen gërëm waa Allemagne ñoom tamit gis naa seen yónnee ñëw na kër bi ñuy joxe kumte ñoom seen nag wi agsi na maa ngi leen ci sant di gërëm bu baax a baax baax ñoom ñëpp waa Saxum daal mën na maa teew xam naa ñëpp waaye lim bi day xaw a yàgg waaye Saxum daal soppe yi daal ñi nga xam ne dañoo tuddi seen bopp soppe yi ñoom ñëpp maa leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal baax luñ man ren yàlla nañ man lu ko ëpp déwén ci barke suñu Tuubaa barke Cheikh Ibra Fall wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh jërëjëf إلا الله سيدنا رسول الله مصطفى لا إله إلا الله سيدنا رسول الله مصطفى لا إله إلا الله سيدنا سيدنا رسول الله مصطفى لا اله الا الله سيدنا رسول الله مصطفى لا اله الا الله سيدنا رسول الله مصطفى لا اله الا الله سيدنا رسول الله مصطفى لا اله الا الله سيدنا رسول الله مصطفى سيدنا رسول الله مصطفى لا إله إلا الله سيدنا رسول الله مصطفى لا إله إلا الله سيدنا رسول الله مصطفى لا إله إلا الله سيدنا رسول الله مصطفى لا إله إلا الله سيدنا رسول الله مصطفى سيدنا رسول الله مصطفى لا إله إلا الله سيدنا رسول الله مصطفى لا إله إلا الله سيدنا رسول الله مصطفى لا إله إلا الله سيدنا رسول الله مصطفى لا إله إلا الله سيدنا رسول الله مصطفى سيدنا رسول الله المصطفى لا اله الا الله سيدنا رسول الله المصطفى لا اله الا الله سيدنا رسول الله المصطفى لا اله الا الله سيدنا رسول الله المصطفى لا اله الا الله سيدنا رسول الله المصطفى Sayyidina Rasulullah Mustafa allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin barke borom Touba barke maam Cheikh Ibrahima Serigne Modou Mbenda yàlla ko fi yàlla yàggal wax leen ko yéen ñëpp sëriñ Modou mbenn mii yal na ko fi yàlla yàggal te wéral ko sëñ Modou mii yal na ko fi yàlla yàggal te wéral ko te barke seex Ibrahima Fall barke turu yàlla bi ñu doon tudd yal na sut sëñ Cheikh Mbacke Fall aw fan yal na ko ëpp wërsëg yal na ko ëpp barke te dara gi sëñ Tuubaa ak Cheikh Bara barke laa ilaha illallah Muhammadu rasulullah jërëjëf Baye Fall yëpp nañ tam doon tudd yàlla rek tam nee na yéen ñaan gi jëm Serigne Cheikh Mbacke Fall waaw yéen ñëpp tifli leen ci sëñ bi nee na yéen ñëpp ngeen tifli ci ci suuf si dafa bëggoon turu yàlla lool nee na sëñ Cheikh dafa bëggoon tur yàlla lool te dama koy yóbbul te dafa koy yóbbul bu demee. nee na bu demee. ñu xam ne turu yàlla tifli nañ ko ci. tifli nañ ci bu baax ñu yóbbul ko ko. nee dañ ko koy yóbbul ci xabru bi. incha allahu rabbi. sëñ bi nee na ngeen tifli ci bu baax ñaan ci bu baax. saa borom gën a yokk yërmandeem. ak ngërëmam ca moom. ak ngërëmam ca moom sëñ Cheikh Mbacke Fall. te ñu yàgg koo ñaana lool. barke maam Cheikh Fall. sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax. gërëm na leen bu baax. bisub bii moom. bis bii moom. bisub ñaan la bisub ñaan la. moo tax ñu gàttal ko nii moo tax ñu gàttal ko nii. Euh, waaye. waaye. li ci ëpp solo. Euh, gisuma lu ci lu ëpp ngeen. nee na gisu ci lu ci ëpp solo lii ngeen doon def. muy turu yàlla wii. ak alxuraan ji ñu ak alxuraan ji ñu ci doon jàng ci suba gi. kon maa ngi leen sant bu baax. sëñ bi nee kon mi ngi di sant bu baax di leen gërëm. gis na seen taxawaay gis na seen taxawaay bu baax. di sant jànkatu alxuraan yi nee ngi sant jànkatu alxuraan yi. ak ñi doon jàng xasida yi. ak mag ñi nekkoon ci baas bi. yor seeni kurus kenn ku ne di def ay dog kenn bi nee gis na lépp. yal na ko yàlla gis yal na yàlla fay bu baax a baax. ñaan ñaan gii ñu doon ñaanal Serigne Cheikh Mbacke Fall. yal yal na ko sama borom nangu. yal na ko yàlla nangu lool ci barke weeru koor gi ci barkeb ñaar fukki fan yi nga xam ñaari maam yu baax ya Ibra sëñ Touba ak Cheikh Ibra ca lañ woon nee na moom nag mu dem dëkkaale ceeg ñoom ci bisub ñaar fukki fan ak ñaari fukki fan yi kon nee na kon kooku bëgg na leen lool ndax bés bi mu dàkk ñibbi ci ñibbi ci ah, muy ñaar fukki fan yi nee na bés bu yéeme la kilifa gu mat mag nee na ko nee na bés bu dem jotee te mënta ñaak yàlla na am bés bii nee na ku mag ci yoonu Baye Fall nga xam ne bu ko waxoon yéen ñëpp ngeen xam ko nii la ma ko nee nii la ko waxee dem de su ñëw buy ñëw naan dem de buy ñëw te mënta ñàkk te mënta ñàkk yàlla na doon bés bi yàlla na doon bés bii kon nag ngi ñaanal ñëpp gudd fan mi ngi ñaanal ñëpp gudd fan ak wér gu yaram ak wér gu yaram ñu yàgg koo ñaanal lool barke maam Cheikh Rafal na borom nangu ñaan gi xolam sedd na lool ci yéen maa ngi sàkku nag ci yéen nee na mi ngi sàkku nag ci yéen ngeen ngeen nag añ yi ngeen nekk xéewal añ ba suur xéewlu ba suur ñu a door a dem ca ndogu ya incha allah rabbi ñaan yàlla ñu teewaat ko ndegal fii déwén te wér sëñ bi nee mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xolam sedd na lool yàlla nañ ko teew wi déwén te kenn bañ a kenn bañ a wéradi ñu wéradi ñëpp yàlla nañu wér barke maam Cheikh ci daraje alxuraan barke turu yàlla wi jërë jëf jëf jërë jëf na ñëpp taalal sëriñ baa ngi ñaan amin amin amin amin amin amin yëpp nag. sëñ bi nee na sant na maam Cheikh Fall gépp ak ñi nekk ci waañ wi ñëpp ñëpp sant na leen ñu ngi leen di gërëm nee bu ñu añee ba noppi rek mooy yeewee bi nee na jëf nee na sant na leen gërëm na leen mi ngi ñaanal sëñ Amdi Modou Mbenn mu gën fee yàgg lool gën a wér ci barke maam Cheikh Fall waaw sëñ Modou Fall yàlla na nga fi yàgg te wér sëñ Modou